الحلال بين والحرام بين عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
الحمد لله الحكيم الحليم ذو العدل والإحسان نعمده تعالى ونشكره ونثني عليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن نبينا ومصطفانا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد بقي دبل خمسة دينة وقت في نيويورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi ngi sant yàlla subhanahu wa taala moom buur bi nga xamante ni moo xam te xam-xamam teeg lépp moo xereñ te lu mu des noonu la moom yàlla subhanahu wa taala ñu ngi koy sant sant boo xamante ni làmmiñu lott na di ko tudd cër yi lott na di ko jëfe waaye dañ koy delloo rek moom yàlla ni mu yeyoo sant boppam nga xamante ni moom la sopp di daan def ci ay rukkoowam ak i si jootam tey la nag dimanche 27 mars 2011 almiladia tombe ak dibéer ñaar fukki fan ak ñett ci weeru rabiu saani ci gàddaayu Mustafa sallallahu alayhi wasallam ñoo leen ko digoon nag mu doon bor tegal leen waxtaanu oustaz Niang Mbaye ci li nga xamante ni moom mooy wàllu polygamie sharial islam daa yoonal nit góor mu mën a denc ay soxna mu jox ko ci ab lim boo xamante ni muy ñeent sharia daa di araamal jigéen moom mu mën a def li ñuy tudde polyandrie mooy moom mu daje ay boole ay jëkkër te loolu yëpp ci xikmatun baaliga la koy suñu borom yàlla subhanahu wa taala defe woon kon déglu woon nañ oustaz mi nga xamante ni noonu la ko defe woon ci partie bu njëkk bi loolu moom moo tax partie ñaareel bi nii dinañ ko mën a comprendre bu baax a baax yàlla subhanahu wa taala yonent yi mu yónni boo leen xoolee ñoom ñëpp dañ doon yor ay soxna dañoo xam ni benn yonent rek lañ ci rotal ni moom amul soxna mooy yonent yàlla isa ruhullah te sax ulama yi nga xamante ni dañuy bind ci moom dañ ni bokk na ci mission yonent yàlla isa buy wàccaat mujj jamono bokk na ci mission yi dana damm croix yi dana rey kii di masiixu dajjaal waaye bokk na ci mission yi itam day takk soxna mottali loolu parce que loolu sunna yonent yi la yonent alayhi salaatu wasalaam bëri na lu muy wax ni lii di sëy sama sunna la képp koo xam da ngaa bañ sama sunna bokkoo ci man muy aadam ba mu muhammad yonent yépp alayhimu salaam ñoom dafa bokkoon ci seen sunna lii nga xamante ni moom mooy sëy te mu bokkoon sax booy xool ci ñoom seen sunna mooy doo gis yonent boo xam day yore lii nga xamante ni mooy benn soxna sharia nag daal di ñuy tëral ni na ngeen takk li tey ci yéen ci jigéen ñi masna wa sulaasa wa rubaa takk ñaar baa ñett baa ñeent ku maandu nag ba mënoo leen a yor ni mu waree sharia al islam daal di wax na nga yem ci benn te ku déglu oustaz bi nga xamante ni def na ko ci kaset bële di nga comprendre lu bare bare ci loolu kon li ñuy def mooy dañuy jox ki nga xamante ni mooy suñu technicien bi rek mu tegal ñu deuxième partie bi parce que jox nañ ay commentaires yu bare bare bare ñu bëri sawaroon nañ ci ndeke l'islam moom ni nga xam noonu la ko tërale wallahi buñ ko toppee rek dañuy am texe àdduna ak àllaaxira kon yàlla na yàlla barkeel seenu déglu ñu jox technicien bi mu tegal ñu oustaz Niang Mbaye hafizahullahu taala beneen bi ci des tàmb bi ci topp an nuqtatul xaamisa ci tënk ndax waxtu mooy nubdatun min adraari taaddud léegi nag baril ay soxna kat am nay njariñ waaye nag ay lor am na ca lor yi tekkiwut ni sharia mi yoonal moo yoonal lu ànd ak ay lor déedéet li muy tekki muy ni islam bëggee ñu tëree ko noonu néew nañu tey jaar moo tax ay lor di am loolu laa jub ci lor yi waaye nanu yëg ni kat suñu borom wax ne man yataadda hududallah faqad zalama nafsa bokk na ci lor yi lay tàkk ci biir kër yi ci xeeti fitna te ñàkk maandu moo koy waral ba loolu mën a wàllu seen ci ay doom ba ñuy ŋàññi l'islam point bi dañ ciy sukkandiku ñoom doom yi duñ jéggoo ndax lan ndax jafe-jafe yi nga xam ne nit ki am na ko ci wàllu ñàkk maandoog ñàkk jox kenn ku nekk àq ba mu amee xam nga loolu day jur ay bañante ba jur banante googu ci ay doomi baay parce que léegi da ngay gis koo xamante ni day bañ doomu baayam te fekk boo ko toppoon jàngat ko ba ca biir baayam a ko waral ndax baayam moo jël yaayu kii teg ko ci kaw kii di ko xorñoñal ñuy gis ñoom gone yi loola dem ba def yëg ci sa xol nga bañ sa baay bañaale ko ka bañaale gone yi lii moo ëpp ci liy waral bi société yi doomu baay yi duñ faral di déggoo léeg-léeg sax mu yegg ci góor gi def lu ëpp yéen yéen du ngeen teg ndax seen yaay sayalu ma loolu kenn du ko wax loolu fas ko ci sa xol nga jéem ko lijjanti loolu yoonu xale bi néew ci moom yéen du ngeen tekki di ngeen liggéey ba dee du ngeen tekki seen yaay loolu kenn du ko wax loolu musiba la day yàq yaay ji tamit yi nga xamante ni mooy faiblesse bàyyi waru koy wax ci kanamu gone moo tax gis nga régler masala yi tey lu jafe la gis nga du bunt bi kese waaye bunt boo dem rek am na ci ay masaakil yoo xam ne moom la ñuy faral di dund beneen bi ci des mooy adamul istitaa bi takalifi zawjat maddiyan wa maanawiyan wa maanawiyan góor gi jël ay soxna te fekk waragul a jël war a jël dafa am mën a jël am li war a nekk am li mën a nekk am li war a nekk ak li mën a nekk nag saa bu ñu leen jaxatee góor gi nga xamante ni moom yàlla da ko wërsëgal benn soxna moom daanaka bala muy lijjanti can sax xaw na cax sonn lool moom loxoom jot gannaawam comme ni ko jigéen ñi faral di wax ndax ñooy faral di wax baat yooyu mënoo wax dëgg yàlla bul bul bul bul lor sa bopp di lor ki nga nekkal di lor ki ngay indi yow bu soxla si feebaree pour nga faj ko problème la léeg-léeg pour ndékki li sax mën a mat problème la loolu damaa jàpp ni góor yablu sa bopp yablu sa bopp mooy nga jug ne da ngay wutaat parce que wax dëgg yàlla am na loo xamante ni xaalis sooy bopp la man gi nag tekkiwul nag comme ni ko jigéen ñi waxee waaw il faut nga xaar ba am kër baa nga am oto baa déedéet yooyu wax dëgg yàlla mu bokk ci nag moom am kër ak am oto yooyu moom nit mën naa dund ba faatu doo am oto mën nga dund faatu doo am kër donte nag jigéen ñi moom li wala fi wax kuy waaja daanu caru garab boo seen jafandu ca jigéen ñoom bu gisee loo xam bu ci jafandoo dana tax nga gën a yéex a am moom danañ ko wax waaye nag loolu du sart nag wax dëgg yàlla l'essentiel daal góor gi lam man ci bu ku feebar mu faj loolu nag tekkiwul mooy ku feebar fas dañ ko faj ndax yow mii sa yore sa kees yow sa bopp sax da ngay feebar doo mën a faju fas kon nattukaay bi ko nit ñi ne faw nga am nangam wala faw déedéet mi ngi aju ci situation nit kek lam yëg ni man na ko te it foofu nag mag du nax boppam ndax bu fekkente ni yow daanaka fi ngay luyee mënoo koo fay wala sa kër baay nga nekk ak say doomu baay indi nga fi benn ñu jox lépp néeg te say doomu baay aajowoo takk soxna nga bëgg indi keneen pour mu dugg ci biir kër gi xuusee ngi bëgg ñëw su fekkee da nga koy luyeel nga man ko alhamdulilah loolu moom mi ngi aju xasbal istitaa na nga ko man rek su fekkee dañ koy bàyyi kër yaayam it kadalika loolu moom sa mbiri bopp ala kulli xaal man gi daal na am li wala loolu moom la moo tax nga dégg jigéen ñi wax naan maanaam yaa ngi boot jotle woo ngay jéem a roggan ci moom la jigéen ñi moom baat moom kalimaat yu yu xarib la ñuy faral di génne léeg-léeg waaye nag léeg-léeg mu nekk dëgg nag buñ def luñ génne rek ñu ni fiir a tax léeg la ñu wax dëgg nag te it léeg-léeg jigéen gi it nag wax dëgg yàlla góor gi du du du sart mu tàgg ko doog a takk soxna waaye nag yëgal ko lu rafet la waxtaan ak moom daa fiir dara xolam loolu loolu aayut léeg-léeg nag jafe-jafe yu rëy rëy rëy am te fekk bunt bi moo koy waral gis ku du ma fi fekk ak waaw da nga maa war ak da nga yooyu yëpp ay mbir la yoo xam jigéen ñi nañ ci ragal yàlla te xam ne yooyu moom du ay wax ñaareel moom mooy ziwaaju taaniyatin bi gayri niyatin saalihatin kat taqlidi aw gayri dalik fekk beneen soxna te fekk tëgoo ko ci yéene bu sell ndax da ngay toppandoo wala da ngay faj mer toppandoo mooy comme ni ko gars yi defee waaye sama yow ka tëggoo ñaareel ba léegi yow yéex nga de mbokk yi loolu doxal bi salaf sal ñoom daawuñu laajante mbokk takk goo ñaareel ba léegi déedéet loolu moom dëgg yàlla moom nekkul ci wer di daje di ko laajante wala nga léegi beneen mu yow sa waay yow sa taaw mi ngi bëgg a tolloog yow sa takk goo beneen soxna ay après loolu yëpp dafa diine ci dara bi sa taaw mën naa tolloog yow te fekk doo am beneen gis nga yooyu nag léegi day dugal ci nit bi sentiment su ko defee di wax na ma ko daaw di wax na ma ko daaw jé di waxaan ma ko bu ko defee affaire yi mën na laaj nit loo nga jóg gis nga boo jógee doo am dimbalam yàlla ñaareel bi moom mooy faj naa te ñaar ñi boo war a ñun ñuy takk ay soxna moo tax ñuy am jafe-jafe ñi soo xamante ni gars yi li ñuy wax bokk na ci lu ko influence ba tax mu tax dëgg la bu ci nekkee waaye sa yére baax na moom baax waaye bu mu ko doon moom waaye faj naa da ngay nekk kenn amoo la nga bëgg nga bëgg sa fajee mer faj mer gi mooy takk keneen léegi nag faj mer gi soo ko defee benn yéen bu baaxut la da lay échec loolu ñaari moom mooy ci nga mujj leen faw mu xam parce que jigéen ñi dañoo ñor te bu ko xasee xam rek fekk tax ndax bu ko xamee faw mu wan ko moroom faj mer saa boo ko fekkee soxna te boo ko soxna yëg ni kat yow mii kat faj mer la léegi ci ñuy fajee mer mi da lay faj ne mer mi te moom yoram nii su ko defee coow guddi benn waaye dafa takk ñaari soxna nekk aawam lu yàgg ak diir mu takk ñaareel amaa na looloo tax mu tax foof ñaareel bi yëpp bi ko ñaareel bi yëgee xam ngeen nañu def da ko yónni mbindaan wax ko ay bayit ni ko boo demee ba sa buntu kër jiw nga xari ko ni ko wama tastawi rijlaani rijlun saxihatun wa uxra ramat biha zamanu fa sullati ñaari tànk mënuñoo yem ndax benn bi moom ar bii fa ko lal ba muy waate nag bi te benn baa ngi ni cocc subhanallah loolu mooy la mooy maa ngi yow mënuñoo yëpp yow yaa dina sawaay bi mag jëm nga da ngaa arbitre man maa def loolu la ko bëgg a wax rek wa ma tastawi rijlaani rijlun saxihatun wa uxra ramat biha zamanu fa sullati mbindaat bi ñëw ba ci buntu néeg aaw bi suba teel tari loolu moom def ko digal rek mu tari wa ma tastawi rijlaani rijlun saxihatun wa uxra ramat biha zamanu fa sullati ndaw see moom yéeni mbindaat ni ko kaay demam faj bu demee lu muy wax ni ko naqil fuaadaka xaytu chita min alhawa وما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول مسير toxalal sa xol bi fu la neex naawal topp ak yooyu foo jëm baax na waaye na nga xam ni ko mal xob bu bëgg moom dañ koy wax illa lil habib al awwal sopp bi njëkk tax ñuy wax ndax moom nga àndaloon ba dara dul dara mu ne ko kam manzilin fi l ard ya'latuhu l fata bari waa na nit fu ñu déplacé wu dem fa dem dem ñiñ ko fañ naan soosaa ko gënal waaye xel mi yëpp mi ngi ni muy def ba dellu si comme njëkkoon a nekk loolu la xolof yi naan picca bi ka kaw waaye xel man dafa bëgg a wax ne ñun waa ji bu ñëwee foofu onc yi muy onc foofu xamal ni mooy dama bëgg a dellu si waat dama aaw waxa ni nuhu abadan onc yi muy onc su oncee foofu rek xamal ni mooy daa bëgg a jiddi si waat sama kër gis nga yii day jur fitna nga defee léeg-léeg nga gis yu dana garaaw yooyu parce que da nga gis ay fitna judd si ba ñuy waxante ay baat yoo xamante ni baat yu yu tegginuwu dara la léeg-léeg sax mu dem ñuy dugg dina nag loolu musiba la kon góor gi war naa fexe ba moytandiku yooyu nga xamante ni mooy ay lor na fexe ba buy tag na ko man ñaareel ba mooy na fexe ba fitna ji judd lu man ci yeeg ci fay ko na ko def ñetteel bi mooy na fexe ba faj meer bu mu ko tax a jóg waaye na am ko rek bañ a sikka te nit ñi li ñuy toog te foofu man ciy corrigé jigéen ñi jigéen ñi léeg-léeg dañuy toog ni maanaam góor bu takkee ñaareel wala ñetteel ci mujjee takk toujours moo koy gënal ci mujjee takk def naa loolu jigéen ñi fas fekk déet demeewul noonu bi mbiram diw ma gënal moom wala diw laa gën a bëgg su dee am na ka du caaga di ci gëmul te loolu tax jigéen ñi ñoo muus ah waa ji kii ba muy bees am na yoo xamante ni jigéen ji ñor da lay bàyyi di jël salaat te it nag islam sax da lay bàyyi di jël salaat ndax islam boo gisee ci sëy ci ñu may ko juróom ñaari fan bu dee mos am borom kër parce que dawal ji loolu gan la dañ koy ganale yow dañ laa ganale woon beneen bi jël moom mooy même ñii bu seen dañ ñëwaat bu soobee yàlla ñun la def lan koy def romb bi ñun la def rek lan koy def de kon yooyu moom jurut mer jurut kulo kan nag juróom benneel mooy al ghira wala kalama li jëm ci wàllu fiir ak yenn ci mbir yi ñu mën a yéeral leeral ci fiir ala kulli xaal tam boobu moom li ma ci njëkk a wax mooy fiir daal wax dëgg yàlla man gisuma ni bu dee fiir rek jëm sa simple kenn waru see yedd jigéen ñi ndax góor daa fiir jigéen daa fiir kooku nag ma def bay na xaw see ni jàllale wàlla njàngalem xas-xas ndax su fekkente ni nit ki kat jigéen ji nanguwul bokkam jëkkëram ji kenn góor ji nanguwul bokkam soxnaam ci kenn ndax fiiraange mbokk yi yàlla moo gën a yey ci bañ a bokk ak jaamam yi kenn te moo gën a fiir nag comme ni ko yontu waxe alayhi salaam boo xam ne juróo ko jëndoo ko pare yaa ngi koy fiiree fa kay ko yàlla mi nga xamante ni moom moo lay wërsëgal di la jox ngay lekk di la jox ngay am ngay sant keneen loolu doy waar kon fiir ci boppam suñu borom def koo mooñee doomi aadama yi ak doomi awa yëpp léeg-léeg jigéen ñi danañ fiir waaye fiir dafa am ñaari xaaj mahmoud wa madmoum am loo xamante ni lu naturel la te daana am nag ci biir kër yonente bi alayhi salatu wasalaam ci waxtaan woowu ñu defoon ci al muskilaatu zawjiya maa ngi ciy wax mbokk yi ne ku bañ bëgg kër gu dul am benn jafe-jafe yaa ngi bëgg bëgg kër gu gën kër yonente bi nag alayhi salatu wasalaam dama ne lii xew ci seen biir kër dama xew ci kër yonente bi alayhi salatu wasalaam ay jafe-jafe parce que loolu moom dund gi ñu am nit nite la koy feeñ al nag moom lu bon li mooy soldaar yooyu nga xam ne mooy soldaar yi njort commencé yeewu soldaar yi sikk sàkkaat bañante commencé yeewu société bi daal di mujj andi na léegi sawara suy tàkk soo xam ne li ko waral mooy fiiraange ji bay def yu ëpp wala ngay wax yu ëpp loolu moom dafa ëpp moom dëgg yàlla di wax bay wax yu ëpp di leen nga dégg jigéen ñi wax ba xal tuuti kon sax ñu ne ne wax nañ kalimatu kufr ah dëgg la fiir am na ndax yent yàlla bi anas nee na ko waaw yow lu tax nga sax ci wàllam saa mu ne ko inna fihim la ghayr ñoom boo ñooñu dañoo fiir dañ ko kon bàyyi ko na ci làmmam yonente bi ali sa xarit boobu nataay moo ko solo sa xarit boobu yëpp di wane ni kon fiir moom lu am la moo tax xam ngeen ni ummu salama bi ko yonente bi di takk li ma waxoon tànk daf ko ñaanal mu ne ko damaa fiir mu ne ko ma ñaanal la mu dem am na yi nga xamante ni rek yu naturel la doon am nag ay xew-xew amoon na yoo xam ni yonente bi fasut ci këram xuloowu ci xeex ndax moom sax mënuñu xuloo ko benn bis yonente bi alayhi salatu wasalaam toog na di lekk ci ayu Aïcha kenn ci sax lay tibb xalaat andi ci nekk Aïcha xam nga jigéen rek moom li mu bëgg yooyu ñooy xalaat ndax fiiraange jàpp ko muy romb fallaxe fallaxe bool fallaxe fallaxe bu bool bool bi ñu kasar toj kooku moom naa ngi yaakaar ni kuñ ko defoon tey ci ñun moom ñëpp lay dégg yonente bi daal di kulu gharat ummukum seen yaay ak fiir tey waaye lekk leen rek amul problème accepté na ko parce que moom moom ay gi dëgg la tooñ la nag du ko faral di tooñ ndax bi mu paree def na jëf ju koy wane dafa pare daal di ama soxna léegi la dañ koy taxal yoo xam ne boo ko xamee moom problème dana ñëw tax ak Aïcha wax wax ju ree mu calme téye loxo Aïcha problème dana mel lu may dox di nga mu ne ko amee xel man daal jéem nga kii sànq moo raam na ci mu ne ko léegi nit ci wu ma da ngaa tooñ te tooñ baaxul Aïcha dem defaat beneen bool fay mu ne ko waaw kay gis nga yar na ko ba mu yaru maa ngi yaakaar bii moom du ko tollante beneen a ngi nii benn bis yonente bi alayhi salatu wasalam jub di jub moo tax gis nga gis nga jigéen ñi ku yóbboo bàyyi leen rek ñu fiir bu ñu nee membre yi nag ñu ngalaat leen waaye nag boo ko jëlee duñ fiir yow yaa bëgg indi lu sotti yow kenn ku toll ni yonente bi alayhi salatu ak yàlla wóolu ko te yónni ko ci waa kaw suuf yonente bi tëdd ba guddi xelam daj ak ragal yàlla mu jub jàpp ba sell su jot ci biir néeg bi jub nekk Aïcha ñu nelaw mu rocceeku ndànk Aïcha ñu yëgu Aïcha jékki-jékki lamb lamb gisat yonente bi mu ni eh xam naa ne daw na ci beneen soxna xel bi ay ci mu daal daal suñu yaay la mi ngi loolu daal waaye nag dafa nite nag dafa nite de loolu dafa nite maanaam jëf ji dafa nite ah ay sa dut comme néeg yi am loolu ay lamp comme ñu di làmbatu di làmbatu di làmbatu ba daj bopp yonente bi alayhi salatu salaam mu làmbatu daj tànk yi ñu ngi xam xanaa xam ne day julli ah xam ne day julli waaye yonente la xam ne dañ def dafa jël loo xam ne ruur ko ci biir xawar yi pour xool ndax tooy naam déet maanaam ndax amul kum dem ñëw xangu te subhaana rabbina al aala te moom mooy nekk li mu ni maa ngi ko dégg ñu ngi naan allahuma inni aaudu bi ridaaka min saxatik wa bi muaafaatika min uqubatik yàlla maa ngi muslu ci sa mer maa ngi làqatu ci sa kontaante ngir muslu ci sa mer maa ngi làqatu ci jàmmal bi la ñuy jàmmal ba muslu ci sa mbugal te maa ngi muslu ci yow man de xam na ne mënuma laa tagg yow yàlla dama lay bàyyi ñu def addiya sama kër sant sama xoolal ñaan ci biir Aïcha moo ko nitee de waaye nag bu ko nitee rek yëgi nit rek lay def Khadija Aïcha nee na man xawma lu ma dal man booy fiire xanaa da Aïcha xam ngeen ne Aïcha fekkante wu kat sa Khadija maa ngi yaakaar ne Khadija bi ñu faatu Aïcha juddoogu fa waaw mos gën a gis kuy fiire bay fiire wujj woo xam ni bi ngay judd fekk na faatu Aïcha mu ne man xawma lu ma dal man ki may fiire man fekkante wu sax yéen a ngi tuddee Khadija Khadija Khadija nekkate affaire bi moo tax góor tamit léeg-léeg yooyu di ko bàyyi xel moo tax ma waxoon la sànq yenn ci mbiri soxna yi bu ko wax ci kanamu ci dina ay leen bis mënatuma koo muñ ko waay xaritam lan man jëg na nga xam ni mat na ba ay lexam moom xoto na ko te gis ko ay lex yu rat yooyu màggat googu yàlla war sa gën na ko sànq bu ndaw tudd ay sa wax a wax a wax a yeggal yéen tamit ne ko wallaahi amaguma ne ko ko remplacé ndax ba ma ñëpp weddee mooma bañ ma dawee mooma yëkkati alalam jox ma pare nag merci bi mu ci paree merci ay semaine journée bi lépp maa ngi rëcc li ma mu ne maa ngi naan tey nañ jubóo rek ay moom duñ jubóo moom duñu ci ñëpp jubóo ci xadisa te loolu mbokk yi la Aïcha ni mu ragalee yàlla naka sa benn kii yooyu bul jàpp ni kii dafa ëpp capacité doomu aadama Aïcha gaye gane gi na doomu bàjjanam mu tegal ko ay palaat pour mu lekk Aïcha ñëw tiim palaat bi daf daw tafu ci néeg bi di jooy jooy yu métti looy jooy mu da xelam dafa dem ci aaya bi wax ni wa yawma yu'radu alladina kafaru ala nnaari adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya ñu ne lekk yu neex yi dafa tax sama xel dem ci mbaar bi dem allah tere yàlla mu ne lekk ngeen lu neex la ci kaw suuf fii di ngeen ko fi lekk loolu la ko doon jooy wax xëy kii ci benn waaye ñu ne romb naa ko muy julli yoor yoor di jooy ma dem marché ba jënd si waat fekk ko muy julli di jooy te mi ngi répété aaya bi inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwa albarru rahim kon ci ñu ragalu yàlla mbokk yi waaye lii de ba ñu si bàyyi ko mu def lu ñu si bàyyi ko mu def lu ñu si ki lay woo nii kan la ki lay woo kan la yooyu am na yoo xamante ni bàyyi dëgg la nag soxna si Sadio man dafay muy xaabaabal di wax rek waaye am na yoo xam jëru tasker jëru tasker parce que amoon na mu ñëw rek bàyyi ko mu wax li muy wax rek bu fekkee ni ëppal amagu ci li mu tuddee nag mooy yàlla si koo xam ne moom fas moom fiiraange gi da ko yóbboo ci weddi sax yàlla subhanahu wa taala maa xam ngeen ni am nañu seen i jëf yàq te bunt lii moo ko yàq dalika bi annahum karihu ma nazala allah fa ahbata suñu borom ni am na ñoo xam ni yàlla nee na màgg naa seen i jaamu yàlla yëpp mu yàq lu mu def suñu borom ne dañoo bañ li yàlla yoon ndox yi tahajjud bëri ay soxla ci li yàlla yoonal la bokk jigéen ji gis ni ki tey na laaj boppam est ce que moom daf koo bañ wala di dëgg la fiir nga d' accordal nañ la loolu dëgg la wuti moom neexul d' accordal nañ la loolu waaye mbirum bañ nag moom jurit du bañ li yàlla yoonal su ngëm yàlla pour mu ne fa laa rabbika laa yu'minuuna hattaa yuhakkimuuka fiimaa shajara baynahum te yonent bi li ñu wax ñu ngi bàyyi ko ci yàlla subhanahu wa taala yeneen nga gis koo xam ne day taan day dem sa musaawa yi ñu yaat taxaral waaw yéefar yu ban yaat jabarkat ya pour nañ la defal noobat nan la defal wax ay wax yoo xamante ni daanaka moo tax jabarkat yi dox ne parce que client yu jigéen lañ ëppale te soxla su mel nii ko am na koo xamante ni moom lañ koy fayee mooy luñ la mas a xamal ci musiba dana ko wax fay loolu ci nit ëpp na jigéen bi dafa war ragal yàlla mu contrôler làmmiñam même bu meree bu mu wax lu dul dëgg bu mu wax lu dul yiw kon jaadu na nit ki dëgg la am na lu ko metti ku góor ki ne naxtaananteeg moom ndànk par ndànk ba wàcce ko loolu mooy li gën waaye jigéen ji kay nga gërëm dogal suñu borom sant yàlla ci xéewal bii mu ko defal te it nag mu soppiwu doxalin nag mu soppiwu doxalin nag parce que yow doomu ci kër nag bokkatut nag léegi terrain bi xam nga bi fi benn ligne téléphone nekkee si nga fi benn ligne téléphone nekkee ci di daa seer amul njëgu téeméer amul njëgu deux cent portable seer moo tax kii soo ko def dama koy nangu léegi lu ñu amoon nag parce que benn sëb ci nag lu ko neex tawee ah waaye ñu nekk jegam yàgg ngeen wuti ni dageet ñëw commencé indi yeneen affaire yu bees yu amul woon beneen wuti ñëwaat commencé indi yeneen affaire yu bees yaakaar naa ne ñëpp am nañ téléphone léegi commencé di woote moo tax wut jar na solo trop léegi nag ndaw si nag dañ naan ko soppil doxalin nag parce que léegi jot bu njëkk yow dong yaa fi nekkoon yaa leen yaa xaaral sa jaay sa kon di xuuxa su waxee rek ñoom waaw est ce ah boobu day fekk yow rek yaa fi nekk waaye nag bu fekkee am na keneen ko fi nekk nag mbir mi faaw mu suppeeku nag léegi te suppeeku ko dina gën a leer ci tomb lu mujj nga xam ni kon am ay soxla lu ëpp benn am nay njariñ ci buntu bi te nit ki mu yëg ni kat léegi nag sama moral laa bi nekkal te it islam njëkkalante bu jëmee ci baax ba ñu ko def wax ci dara njëkkalante moom bu jëmee ci buntu baax wax ci dara kon suppeeku waan al nuqatul axir mooy tomb mujj bi mooy ak tawfiqatu rabbaniya fi taadudi léegi nag kéemtaan yi suñu borom yi nga xam ne nag moo nekk ci bari fukki tomb ak juróom benn wala juróom ñaareel yi ma tënk yoo xam ne benn bu ca nekk maa ngi yaakaar ni waxuma la góor ñi mooy jigéen su ko dégg bu dee jamono bi nga koy dégg fekk na ngëm gu wér ci sa xol waxuma la sax ngay bañ am mucc waxuma la sax nga cay nga koy feeñal waaye damaa jàpp ni da nga daal di yëg ni su ne yërmande ji war naa yegg ci ma xaj xajal ñeneen ñi ñëw di gis bi ci nekk mooy islam day risaalatun alamiya te dafa togg ñi nga xam ni ñoo nekk ci biiram nan ko jotal nan ko wasaare parce que daan ñeneen ñu ci nekkoon l'islam ñëw tàbbi ci biir jiw kon faw mu am population bu doy te loola bari ay soxna benn facteur la ci bari ay doom benn facteur la ci ak yeneen léegi maa ci taamu ñaari ndax moo la tax a jot tey kon ku fekkee ne ni gëm nga ne l'islam moo war a dominer moo war a ëppale ubbi buntu soxna yi kenn ku ci nekk bañ a taxawaalu mu am ku mu jàpp njaboot bi mën a tekki ñu yar leen ci diine damaa jàpp ni bokk na ci xikma yu rëy tawfiq yi tax suñu borom yoonal bari la ay ñaareel bi góor ni ko yàlla bindee moom mën nay produit bi am doom ba àgg soixante ans léeg-léeg sax mu ëpp soixante ans léeg-léeg mu àgg ci téeméer ci leen ci waxi borom xam-xam te noo wér nit ki dëgëraaya jigéen nag ni ko yàlla mooñee bu àggee quarante ans lu mu ko fekk bénéfice am waaw te diir diir boobu yëpp day nàmpal di gis baax di leneen waaw ndax sa këriñ mooy góor bi moom na taxaw di xaar soxna si ci diir boobu yëpp wala mu dem sabab lu jiwaat keneen ci beneen soxnaam yaakaar na lay xikma mooy mu am keneen wala sama di ko xaar ndax mën na ko bañ man ci loolu mën nañ cee déggee ci ñetteelu tomb bi ba tey nii jigéen moom yàlla mayu ko mu nekk waaj ci jamono bu nekk borom këram mën a ànd ak moom ci wàllu sëy te góor moom waxtu bu nekk yemb na pour ànd ak soxna ndax ci day gis baax léeg-léeg mu am doom léeg-léeg mu nàngam waaye góor gi bu fekkee ni soxnaam dafa gis baax wala mu am doom nekk certificat mu war a yàgg wala mu feebar mu aajoo bànneex ubbil ko buñ tas demal wuti solo ci bitti nga njaala gudd naa na ak nga jël beneen soxna mu nekk ci kër gi ñaar yi ba mu ci gën a nekk xekma xekma mooy jëli soxna mu nekk ci kër gi ñeenteel borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ni jigéen ñi àddina bi ëpp nañ góor yi àddina bi fuuf ci jamono joo xam ni jàmm moo xew jamono ji jàmm di xew guerre amul dara amul jigéen ñi ëpp nañ góor ñi ay yooni yooni yoon waaw bu fekkee jamonoy jàmm luñ ëpp góor ñi kon jamonoy ay bu amee muy xeex xam ci xeex ku ne xam ne ni góor ñee ëpp lu ñuy jëyee kon luy xew danañ gën a ëppaat góor ñi foofu nag nag afamin saadatika uxtil muslima wa faraxika an taisha faridan maa zawj naka yow sama mbokkum jurit ñi sa teraanga li jurit ñi mooy teraanga mooy yow kese ak sa jëkkër ci waxtu woo xam ni ñi nga bokkal baay ñoom amul jëkkër parce que keneen keneen war na xajal daa def li yow te rek bi nga bokkal ndey ak baay ak sa mag bi nga xam ne yaa ko du am borom kër ñoom ñëpp ñu ngi toog kenn ñu ko am borom kër lu tax parce que góor ñi dañoo bari ba yegsee guñ ci ñoom te it xam nañ war a mën a xajal ñooñe fat nañ ko parce que yaa fat ni ñoom kon yow nga toog ngay dund sa borom kër di bàyyi say sœur ak say doomi sœur ak say doomi bàjjen ñuy taxawaalu amuñ benn góor gu leen wéttali tumuranke lool daya di lool ndax yow loolu moom mooy sa ngëm yàlla wala bi kooku laaj la boo xam ne man du ma ko wutal tomb waaye soxna yi ñoo moom tomb danay gis ci yenn ci góor yi muy juróomeel tomb bi ci tawfiq yi yàlla yi nekk ci bari soxna dafa góor ñoo xam ni benn soxna mënu leen doy ci wàllu bànneex la loolu du ay bàkkaar dara nit nag nag nit ñi ko yàlla bindee am na koo xam ne benn soxna doyu ko loolu ñu ëpp ñi muy dal mooy ñi féete ci gën a tàng gis nga boo demee ci réewu tugal yi boo gisee ñoom dañu am problème boobu xam nga lu tax mooy seeni réew yëpp day seet te lu mel nii góor du ko am ci waxtu bu set ci jamono climat bu set nit ki jàng bi mu dëkk mënu gën a déppoo tàngoor te la góor yi nga xamante ni ñoom seen bànneex dafay bari lool ba benn soxna du leen doy waaw su boobaa nit ki benn soxna doy ko ndax day dem mu caaxaani wala nu muy defar soxnaam wala boobu day jël beneen soxna ànd ak jamono jooju fekk na jigéen ñi sax nag ñoom ci seen jëmmi bopp yëpp nañ masala mii muy juróom-benn tomb bi xeeti journal yi nga xam ne ñooy génn di waxal islam yàlla nga gis ci journal boo xam ne da nga gis kayitu salaame jigéen di ko def am na benn majalla boo xam ne Égypte la ñu génn li may ni ko mu doon xaw naa yàgg waaye mën a nekk tegtal majallatul Kaasifaa al Misriya benn jigéen dafa bind benn lettre ci benn borom xam-xam di sàkku fatwa mu ni moom borom këram ni ko yàlla bindee dafay soxla sëy lu bari te ndaw si nee na man loolu mënu ma ko jékku parce que daf may lor te su ma ko gàntalee maa ngi koy gàntal ci àq bu mu am ci man te su ma ko ko nangulee maa ngi koy nanguñ ci ak àq bu may loroo man kon nu may def ci maa ngi yaakaar ni ku ko waxoon na sa borom kër nit beneen soxla du kon lii nit ñaa ngi koy dund jigéen ñaa ngi koy dund te ndaw si kat mu ne man kat maam ay doom aajowoo leen yar aajowoo leen nangam ilaa axiri sama wér gi yaram may ma loolu sama borom kër bi te lii nag moom lu bët di tege gis nañ muy appareil di am ay jafe-jafe mën naa am ci biir néegi koy fekk lii moo ko waral loolu du bàkkaar ba noonu la yàlla bindee nit ki su boobaa yaakaar naa bu amoon ay soxna defe naa bunt bi dana gën a yomb juróom-ñaareel bi mooy jigéen danay jànkonteeg ay coono ci ëmb ci am doom ci gis baar rawatina ci mu jëm tamit ëmbam buy indi nga xam ne day aajowoo sax sori góor fat nag moom jamono bi day aajowoo sori góor ndax xam-xam saxal na lu mel noonu sori góor si wàllu sëy la si waaye léegi góor bi moom su fekkee benn soxna la yore moo tax dinaa wax gars yi ni am na njàngale islam yoo xamante ni boo yoree benn soxna moom mu ñëw rek boo ko ji ah yow bu fekkee islam dañu la bu soxna si defee naka su dut noonu na nga ko yar yar ba bokk na ci na nga ko tong ci kaw lal yow teel a dina ko tongee ci lal moom mu xam ni yow yow keneen moom kese boo ko tongee doo dem fenn moom it doo dem fenn te comme yaa ko mën a ñu la lay wax mënuñ ko may moo tax da ngay jaay ko la ba féete fële mu ëpp la fay ba féete fële parce que xam na ni yàgg yàgg dana nekk ci yow waaye nag bu fekkente ni da nga am mer nga féete fële ndax xëyee dimanche suba la altine waaye ba talaata ba talaata boo xëyee solo ba jekk par rapport jaar ñuy jëm fële jigéen du gën a muñ loolu day xam ni li waa fii doon lañ waa fee rek fee na moo tax lu gaaw la ci yar ay soxna góor ñi gën a mën a yar seen soxna ci bunt boobu mooy ñi ëppal benn loolu fekk mooy ci am benn mënu ko waaye sama la gën a yombee laa bëgg a wax beneen bi ci rek juróom-ñetteel mooy jigéen bi dana nekk koo xam ne yàlla da koy nattoo ngeen ànd ay at du ngeen am doom mu faju faju wéru parce que suñu borom tuddalu ko am doom ndax xikma bi yërmande mooy nga wàcc ko su ko defee yeneen góor yëpp wàcc ko parce que xam nañ ne sëy naag diw ay at amul doom kon du am takk doom kon yow moom torox nga dootoo amati jëkk wala xikma mooy nga téye ko te moom mi ngi bëgg a continuer te yow nga bëgg a am doom dem te ci keneen amaat na sabab lu tax yaakaar naa ne téye ko jigéen ñi nga xam ni ñoom ñooy bañ wujj sax ñoom yëpp nañ ni loolu kat ñu mooy la gën juróom-ñetteel bi wala juróom-ñeenteel bi am na jigéen ñoo xam ni góor ñoo xam ne yàlla day nattoo soxna yu bon ay jikko loolu day faral di am bon jikko lool sax soxna soo xam ni moom daanaka moom dafa mel ni daal ni jigéen di daboo bànneexi jëkkëram moom loolu lay daboo naqari jëkkëram moom loolu day faral di am loolu nag ñaaw jikko dafa yow léeg-léeg day nekk lu lu lu lu mënta su fekk ci nit wala lu jafee su loolu day faral di am nga gis góor gi daanaka foo ko fekk mi ngi niger sonn lool jaaxle fekk daal bu wàccee au lieu que mu dem këram xam ngaa mbalu fu ne mu jàdd jàddaat fa parce que la ñuy fekk daal te gis nga tontu yu gàtt yi day dagg xol tontu bu gàtt jigéen bi ko gën a mën moo gën a mën a musu jigéen dafay nooy ay baat neex ay kàddu moo tax nag yor ay soxna bokk rek xekk may mooy li lay nit say na di ko baax neexoo di ko def ndax nit moom ñëw na lu ñuy faral di boo su ko defee su boobaa fàtte daw ko ndax ay jikkoom yu ñaaw góor ñi di ko daw ak dem takki keneen ku rafet ay jikko amaan na mu ñëw suppi ko te it day faral di suppi na nga bu la yàlla war ko bële lu mel noonu nga muñ ko ngir yàlla tak keneen ku baax ku am ay jikko yu rafet moom mu ñëw fayante taxu koo jóg waaye defal gis nga jigéen day ray bu baax la am na yoo xam ne léeg-léeg muy soppi ku yu gaaw yi may wax moom defe naa gars yi xam nañu xam naa man bu dees ko xaw-xaw te gars yi xam nañu léeg di soppee ku yu gaaw yoo xamante ni daanaka kalbarxi comme naa fekk li ko waral mooy jal bi ah yow koo xam ne yow boo xëyee bala ngaa jóg da ngay nelaw ba ñu fodd fa dooral ci néeg bi takk ëtt bi takk nag yaa nga teg ëtt ba lu wax nga teg ci baat kéwul fajar jub na ba ne ëtt bi defar xale yi ba topp ko waaye say doom yow yow ci ji defaral seen bi ndékki mu ah yow da ngay xëy ba bi rek daal di jóg heure bu daawul jóg xëy am ay ay ñeneen da cee baax de ñeneen ñoo xamante ni marchandise mi nga yore la ñu yore da cee baax lool parce que marchandise yi yombul woon yëpp di marchandise saturé rek ci la commencé yow loolu dund gi yëpp kon su boobaa nit ki na bàyyi xel ni comme bari ay soxla dana xet ma juree fukkeel bi qad yutawaffa ahadul muslimin fayatruka zawjatan wa awlaada kenn ci ñun ndooloon bu faatu woon tey bàyyi ay doom ak ndax xet ma mooy góor bu mu takk mu dem takk ku ñuy sabab loo ay doom kii jot naa ami doom ba pare kenn du ko takk ñu bàyyi ndaw ko ku sa jëkkër faatu rek yow moom pare nga ci dund gi yow su société islam bi ñun suñu yërmande foofu la yegg jigéen bi seen yërmande mooy képp ku am borom kër ba borom këram faat am ay njaboot ñu ne ko yow seetal noo def yow al musibatu kullu musiba ndaw si day nekkoon jàmbaar di góorgóorlu di muuru mu jot di nangam léegi su ko defee góor ñi jëluñu ko jigéen ñi yaataluñ ko musiba ji muy jur lan la musiba ji muy jur mooy nga gis léegi mu commencé wàññeeku ñëwatul jàng muuraay bi jotagul benn waaye taxaw fële di wax ay waxam fekk moom da nga xam lu muy dund lan la ñi tamit ki nga ko yoroon njabootam te foofu maa ngi jàllale waale beneen buntu def ko bay na xaw fay ñi nga xam ni ñoom ñooy wax ni dañuy takk ay soxna nañu ragal yàlla ci buntu boobu baril ay soxna tekkiwul ni mooy képp kuy takk na nga takk ndaw bokk na ci yërmande bi ñu taxoon takk ay soxna am te yeneen bi saa ni ñuy rey looloo ëppoon nga la ñuy def mooy fekk sa mbokkum julit moo xam ni faatu na bàyyi ay njabootam wér na ni kii lii la bëggoon nga uuf soxnaam uufalaayal ko njabootam yaral ko ko wallahi gëm naa ni tuyaaba bi nit di am ci takk soxna bii moom day duble moom bii soobu moom dama ko defal ko suuf moom day duble parce que dafa am yeneen sabab yu ci lax quoi li ëpp la góor ñi duñ faral di def lii loolu nag tuuma bi rëy la ju dal ci seen kaw ak sunu kaw ñun ñëpp sunu borom ni wala yaxsha alladina law taraku min xalfihim durriyatan daa'afa man nga caa déggee ci nit ñi kon bàyyi xel ni su doon yow tey boo faatuwal yow jóge ni ñu bàyyi sa njaboot bi ñuy tumuraanke wala benn góor ñëw jël leen uuf leen ak njaboot bi di leen toppatoo maa ngi yaakaar ni loola lay gën fukkeel beeg benn am na taadduda wasilatun kabiratun zaatu manaafi'in kasira bari ay soxna kat mooy la bu mag bu bari ay njariñ lool nag fii tarbiyati nisaa min annaaxiyati diiniya wa dunyawi bari ay soxna nag xikma bu rëy ci nekk tawfiq bu rëy nag ci mën a yar jigéen ci naka ma ne ah góor gi de bu fekkee dafa amoon ay soxna bu amoon benn soxna ay ndigalam di yeex moom bu dollee dootul yeex ci bu soxla koo xam ne yow bub ni nga war a xëy suba boo ko bàyyee ko ñu fóotal la ko sa tàmbara yi yendu fanaan ba koo xam ne yow daanaka waaw sëñ bi bëgg daal dañoo wut noona léegi nag léeg-léeg mu nekk ci sàggante la mu nekk leneen bu nekkee sàggante ko waral moo tax may wax ah keneen ñëw koo xamante ni moom ñun ñëpp bu ko seetaan bu yàggee day yóbbaale ki rek du ko waxtaan rek day jiitu rek yow ak ci ginnaaw kon daf koy ndig rek say tere moom léegi day daal di commencé yomb ndax te xam ngeen jigéen dañuy tusaabu dañuy jëkkante parce que kenn ku ci nekk bëgg na sa borom kër gën laa fa te jigéen nag lim dina kontaan nag te loolu dafa nite nag ci ci nit yi nit yi la bokk nit ki lu ragal ragal yàlla bu am sax mën na si bañ nga jigéen ji borom këram sant ko mu bañ ñu yëkkati ko jox ko kee bu yëg dañ kaa jox kenn day sawar ci liggéey bi mu koy liggéey parce que kon lay wut loolu kon lay wut de dina nga gis jigéen ji bu fekkee ragal yàlla nekkul ci moom nga am sa soxna problème mu dem seen kër ah te des moom xam naa ne xam nga ñu def lu ñuy ñaan waaye moom day est ce que est ce que na ñëwaat lay ñaan xam nga loolu maanaam ci ragal yàlla loolu di nekk problème waaye su ñu nekk problème mooy ki nga xamante ni moom wax dëgg yàlla ragal yàlla nga def na fukkeel beeg ñaar bi taajul yaalamu rajul xaqiqata taami xayaati zawji dëgg dëgg na ci bari ay soxna ci la nit ki xamee nag sakk bi nekk ci dund bi dund sëy nag laa bëgg a wax xam nga suñu borom dafa def ku man lépp amul ku man lépp moom amul ci lépp Xadija daa tane woon rek moo tax yonent bi yemoon ca alayhi salatu wasalam ba mu ci jógee wut na ñeneen léeg nga dégg ko ni man dama yem ci benn parce que sama kii mat na lépp loolu moom waxi neexal la rek waxi neexal la rek waaye yooyu moom te su topp nañu wax parce que góor moom même boo ko nar a lëkkal rek parce que jamono daa gaaw ci soppeeku te léegi gis góor gu ni man du ma kii nangam nangam def ay at rek ngay sànni xanaa loolu mooy li ñu naan li borom xam-xam yi jëkkee naan li may waxi saafee ji yàgg daal li may wax tudd ci xanaa nga dugal ko ci buntu boobu rek loolu laa waxoon léegi dafa xam naa ko waaye loolu daal laa wóoru te it bokk na ci muskila yi indi sëy loolu la ci sëy da ngay gis góor gi gëm loolu soxnaam ni du ma am beneen soxna dem ba mu yàgg nag mu bëgg ko wut jafe-jafe am kooku ma tàggal laa ci beneen xaw fay ni mooy gis nga bu dee góor gi nar na dëgg-dëgg te man ko bu mu ko yeexee na ko nekk góor ga daana ma wax loolu daana wax ni boo ko naree dëgg dëgg dëgg nekk ko boo ko narum dëgg nekk bi mooy lan gis nga am doom ak am doom ñu ngi jege yoo ndax gis nga jigéen bu fekkee dem na ba am doom di toll ni mu jëm day ngeen di jafe-jafe góor gi saa bu yeexee takk ba jigéen di dem ba naagu jàpp ni kii dootul gis nga léegi gis ku def lu ëpp fekk naa koo xaw a am xësta bii may bëgg a nekk li bu dul woon ak ki ma ko nit di fiqala te nee na xam ne ki mu doon man na xaw ko duma ko bëgg pour loolu la ñu ñu dañuy ñàkk xara sax ci tëgwuj koo xam ne borom këram noonu la def yàgg lool bu mu jéggi dayo ba mu toll dootul xamal benn gi mu aye tuur ci këram xam na ne te la ñuy fekk mu wax ay xaritam pour xarit yi wax wax daw si ni ko def yooyu tamit ci parce que moom lu ko wax xam nga daal góor ñoo xam ne daal ñoo ngi ci moom ñu yore ay tankeer la di leen jëriñ di ko ko xarit yi waxee dafa mer xasaraay ci kër gi wax waaye li gën a kéntaane dafa rootam ci woo ci résumé bi pour xare fekk ko ci digg ëtt bi xeex laa yu génn ñëw fekk ñu ngi teg soo biñ tegoon def ko ngi tax waaw ñu jël soo bi tàbbi di ko dus mbokk yi mel ni sëriñ bi nee ma xam na ci ko def duggul soo bi tàbbi xanaa sax ku duggul soo bi tàbbi donc wala li mu dugg xam nga yow wax dëgg yàlla yàq saba dëgg la nag ñàkk sago dëgg la nag xanaa wax dëgg yàlla boo xoolee sax di nga xam ne ñii moom duñ ndox sonn waaye gën su dee kon boo tax maîtrise du ko amat mu ndax xëppoo na ko ba génn doo nga xam ne moom li mu xëppoo daa xonq xam nga yooyu wax dëgg yàlla ñàkk sago dëgg la day faral di am nag su ko fii day faral di am da ngeen ko xam day ñàkk sago dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg léegi nag maanaam ñun ñi wax dëgg yàlla waxtu ba wax ci ay wax yooyu sax waxtu ba wax ci wax yooyu wax dëgg yàlla kon yooyu mat naa bàyyi xel su ko defee sa nit ki yees koo def ba mu ëpp ci buntu boobu tamit bokk na ci lor fukkeel beeg ñaar wala fukkeel beeg ñett mu daawamatul mahabbati bayna zawjayn bari ay soxna bokk na ci xikma yi mooy day indi fexeel bu sax nag xam nga lu ko waral mooy ida raba anha zawjuha fi baad al ayaami izdaada ishtiyaaquha ilayhi wa izdaada ishtiyaaquhu ilayhi xam nga chaque jour mbi ñëw aye fenn lépp kat tey nga aye fii suba nga aye fan loolu nag tekkiwul ni mooy góor ñi yëpp jubleen wuti ay soxla waxuma loolu ba léegi de li ma mën a wax mooy bokk na ci kéem tey suñu borom yi ci nekk mooy day gën a suuxat ay mbëggeel ci sa digganteeg moom lu koy waral mooy gis nga góor bi bu fekkee dafa am ku mu aye sagoo ko dem fata des bu dugal boobu su fekk yu bari day am ndax kat ndaw si boo déewutee da ngay beesaat fekk ci moom mu beesaat fekk ci yow ndax da laa nam ñooñu ne mooy jigéen ci boppam li koy indi problème bokk na ci mooy ñun du ñuy ñëw sama borom kër ay fële doo xam lu mu leeree reeree doo xam lu mu fa nekkee sa di jot te nag na ne naa góor ñëw dañ ko jàppal daan jigéen ñi daal metti nag dafa metti nag wax dëgg yàlla ndax yaa ndaw si kese kese kese ci ci ci benn bis bi set guddi léeg-léeg nga jékki-jékki rek ñu ko xaaj sa digg ba xaaj léeg-léeg nga jékki-jékki rek woon ko ginnaaw dem tëj fële dëgg rek saa mën a ko yoonal nag waaye nag wax dëgg yàlla bu defee yëfi sentiment bàyyi ko rek nga xam moom daa ñëw rek léegi léeg-léeg sax mën nañ la kaa fekk dina indi ay defaral na sama lii kay fekk defal lu dara te nii indi ay affaire rek yooyu yëpp nangul rek ay defaral ma sama lampe bi daa gurlee kay teel ma fekk yooyu yëpp daane kay yëf yi ñu teel rek yooyu moom bàyyi mu jàll rek boo ko waxee dama nga defaral ko rek nga génn dañ sa yoon kon mi ngi noonu bokk na ci yi waral tamit nit ki di mën a muñal na soxnaam ndax wax dëgg yàlla béjanteeg nam nañ te bu amante wax dëgg yàlla muñal nañ ci daal di gën a daal di bëgg a ñëw fukki rek ñeent taxantu ci boppam dafay faral di sabab nit ki mën a dékku ay coono ndax bu la wéree nit ci yéen lay xaar kee du la xaar kee du la xaar ak njaboot bi defe naa di ko gën a góorgóorlu su ko mbég juróom mooy day wàññi liggéeyu kër gi nga xam ngeen ne jigéen ci kat bu fekkee toll na ci yenn barab yi ci ëmb yi demee noonu sëgg du bari du ko yomb liggéey bu diis ka daal defe naa wuti mbindaan moom bu fay mbindaan mënee am defe naa takk soxnaa ko gën a yomb pour man beneen bi ci topp maa ngi leen katal bi sawaab sawaab tiyaaba yu bari yi ci nekk ndax kat ay jibaaru tiyaaba la yoo xamante ni mi ngi xaar nit ki ba ci yuqma bi nga xamante ni nit ki mi ngi koy jox soxnaam loolu da ciy am tiyaaba li may jeexale mooy ab ndénkaane ndéy boo xam ni sunu mbokk jigéen yi ñoo ko moom bi ci njëkk mooy ñu fexe ba fiiraange gi bu mu la yóbbee ci luy meral sunu borom subhanahu wa taala lu mel ni laaj nañ la fate comme may ma sama baat ma dem loolu musiba la wala boog diw boo ko weccut man duñ moo tam ànd si yéen yàlla gën bépp jigéen bu laaj baat may ma sama baat te fekk amoo ci ah àjjana yow gënu ngay xalaat bu du la xeeñ yow ñaata jigéen ñooy fayee may ma sama baat te fekk musiba bi rëy moo ci nekk kooku nag naa bàyyi xel loolu xadis mu ngi ci sunan abi daawud ñaareel moom mooy tiitam gi yëpp ko jigéen ñi leen dañuy faral di ëppalante comme exemple sama borom kër moom a defal lii te fekk defalu la dara loolu lépp fooyee bëgg laaj bëgg koo jaxase ak def rek ndax ñëw ku la jëndal lii mu ne lii de sama borom kër fekk jëndalu ko ko bëgg rek délégué diw diw bu nekkee mu ne ko waa yaa ngi jëndal diw nangam jëndaloo ma asma nee na benn jigéen dama laajal ni ko ndax loolu dagal na mu ni ko déedéet loolu ci bàkkaar yi gën a bon la bokk kon maa ngi yaakaar ni waxtu wi tënk nañu xamal naa ni xam wax faytu ma aratu min hada almawdu lu mu yaakaar ne xëy na yi ëpp solo jàll na la am na bu amee yenn yoo xam ne ay leeral la ñu leeral borom xam-xam yaa ngi fi ñu ngi ñaan yàlla tawfiq sadaat fi lqawli wal amal wal ixlaas fi lqawli wal amal وأن لا يجعل للشيطان نصيبا في أقوال ولا أعمالنا إنه نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.
bu fekkee am na ay laaj bari na laaj waaye man mooy fekkee dina tax ay laaj insha Allah taala Cheikh alhamdulillah والسلام على رسول الله الإمام رب سبحانه وتعالى قبل التصوير الإمام على الدور الزباني في وقت يقول خلق الكريمون الوقار ak ci yaari kay ku dund ci yenn réew yi lu aju ci lor yi nga xamante ne moom moo nekk ci ñàkk taaddut ku dund ci yenn réew yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci xalit bi di nga ko di nga ko jot bu baax a baax di nga ci gis ay réew yoo xamante ne réewu jullit la waaye takk ay soxna yu bëri siiwu fa ba moo tax nga gis jigéen suñ ko fàttee mën nga ne kooku dootul am jëkkër maanaam ci say film ñu am wala jigéen su borom këram faatoo man nga njort ci juróom-ñeent fukk ci téeméer ne kii dootul am jëkkër mu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ne ay réewam koy dund seeni borom xam-xam wax ci dem ci def ci lu nekk waaye xal lu amul kon waxtaan la woo xamante ne ci heure am la la ñëw geneen kàddu bi daanaka day day xaw a juróom taaliq waaye amaale laaj mooy côté séddale ay maanaam su ma juumul lu war la ci maanaam képp ku dul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li tax nag nekkul li war ci yonente bi mooy ni aaya bi dañoo turbi man tasha minhunna wa tuwi ilayka man tasha ak tafsiraat yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aaya bi te it dina gën a firndeel li ni mel mooy xadit bi nga xamante ne wax na ci bunt bi di wane ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam benn guddi daan na ci wëral soxnaam yépp sangul ko genn sox sangul ko genn sangu loolu di gën a wane ne maanaam yonente alayhi salaatu wasalaam am na genn xusuus yi di leen yàlla jagleel waaye tamit loolu di ñu gën a firndeel xadis bi nga xamante ne moom la suñu Aïcha ne est-ce que nekkul ci yeneen soxnaam yi la dem ñu yëg ne ne su demee maanaam maanaam lu ko war la am na droit dem mu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatulah fekkee mën na ci doon sax. Cheikh أبو كلمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته suñu mbokk ne ñu koy ñaanal yàlla yàlla ko yàlla sàmm yàlla ko yàlla aar yàlla ko yàlla dooleel kattanal ko yàlla yàlla gën a ubbiwaat ay gëtam gën a leeralaat gisam ndax lii mu waxtaane tey fii nekk na loo xamante ne ni ko mbokk mi waxee léegi ñëpp ñu ngi koy dund ñu des nag dundin wa day ute si ute yi nga xamante ne ñoom ñoo koy dund li ñuy wax taadud mooy ut ay soxla yu bëri dafa doon loo xamante ne lislaam moo ko santaane te ni mu ko waxee du lislaam moo ko jëkke gis nañu yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam bi lislaam santaane loolu yonent bi salallahu wa sallam moo jëkk wone taaddub bi nan lay mel fan lay jëmet mooy ñi nga xamante ne dañoo doon dund si jaahiliya bi ñu duggee lislaam fekk ñenn ñi ngi waroon juróom-ñeent ñenn ñaa ngi yore woon lu ëpp loolu waaye yonente bi salallahu alayhi wa sallam def leen ne jël leen ci ñeent ñi ngeen gën a bëgg nit des ngeen libéré leen kon loolu nga xamante ne yonente bi wax na ko def na ko loolu moo war a nekk dañuy julli ci kon loolu lañ war a fure aaya yi ñu bañ kaa fure beneen jéggiin ba tax na sunna salallahu alayhi wa sallam ak siira yonent bi ak saxaaba yi dafa bokk ci li nga xamante ne jullit yi dañ kaa war a gëstu ndax fi ñu bëri si ni ñu war a dundee foofu lañ ko war a jëlee am na leneen loo xamante ne mënuñu ko jëlee si benn kër lu dul ci sira moo ñu jàngat ko li mu wax ni ñenn ñuy firee matna wa sulaasa wa rubaa bu doon ci loxo arabiya kese demul ci sharia masalan ñuy nekk ci école yi bu fekkente ne xale yi war nañoo dugg léeg-léeg am na école yoo xamante ne xale yi dañ leen gëral dañuy def maa di dugg par kenn kenn dugg par ñaar ñaar kon boo nee télévisé yi udxulul fasla masna masna na ngeen duggee classe bi par ñaar par ñaar na ñaar dugg ñaar dugg masna masna loolu lay teg foofu waaye bu fekkee dañ kaa yóbbu si aaya bi duñ ko firee niñ déggee loo aaya bi yi waaye dañuy am ay référence dañuy am ay adilla dalil bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu war a turil alquran kon lii la ko turee woon lii la ko jàppee woon lii la digle lii la tere kon keneen bu fekkente ni ñëw nga li nga xam si loo arabia da nga kaa war a sànni si àll ba nga xam ne alquran bii su ko turee loo arabia rek si digg na waaye def koy firee li nga xamante ne kañ waroon a jottali noonu la ko firee noonu la ko jàngale may laaj rek mbokk mi ñang lañ ñaari laaj benn bi nee na waa ji bu fekkente ne tongoo na ak soxna si mu xam ne tey la dimanche ëllëg la samedi bu ki xamee talaata lay defaru daal di dem génn waaye lu tax mu tànn talaata beneen beneen bi kii nga xamante ne ki lay dafa gas bi soo disaas bi xaw ma lu xew de waaye gis nga moom dina torox tol waaw maa laay tëgg génne naka lay solo wala fan lay def salaamaaleykum wa rahmatullah incha allah benn mbokk rek la ñuy jox kàddu laaj laaj na kàddu ba pare buñ ko joxee incha allah ñu yëngu alhamdulilah salaatu salaam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajmain jazakumullahu xayran naa li may njëkk a wax xam laaj waruñ jóge ci borom xam-xam di jëm ci dugal ko loolu moom laay tontu cheikh bi ak laaj yoo wax dëgg yàlla waruñ jóge ci borom xam-xam di jëm ci moom ko waaye loolu seen misaal rek misaal laa doon joxe rek maanaam dama doon joxe misaal rek di wane ci ay bis comme ñooy ci itam dimanche suba daal ba ginnaaw suba la talaata maanaam misaal rek laa doon joxe waaye bu ñu jëlee àjjuma sax day baax beneen bi nekk dina ko mën a xëy ci taarif ñu leen def sànq maa ngi ci wax isaal xam nga dama ko wax xanaa foofu ñaaw la ci loolu mu wax ci ñi nga xam ne dañuy sukkandiku ci aaya jooju ci dagaral lépp benn li tax boo gisee leeral la ci bari mooy borom xam-xam yaa ngi dinañ ko mën a leeral ñaar yu moom mooy comme ñoom seen i kàngam ci seen jëmmi bopp boo leen laajee buñ ko teg ñu ne seen bakkan parce que yëpp ñu day yàq wax di desoon na si loolu moom alakul xaal li gën a wér mooy li nga wax yonent bi alayhi salaatu salaam moom day waan danga wax bopp benn ëpp ñeent waaye keneen ku dul xatta Abubakar bu fekkee du jaam day ëppal ñeent kon buntu boobu moom ñu bàyyi ci xel beneen bi ci des moom mooy loolu ma doon wax maanaam loolu misaal rek laa ci doon joxe bu fekkente ne nit ki xëy na mi ngi nekk ak soxnaam jafe-jafe am mu wér ko ni moom bis bu nekk saa bu ayee ci moom lay jëmi si waat kooku dana wuuteeg nit ki mu xam ni am na keneen feneen fu muy dem parce que juri bi loolu du tuuti dëgg léeg-léeg defe naa loolu moom aji laaj bi moom xam na ko bu baax su ko defee jigéen ñi léegi-léegi yooyu dafa bokk ci ñaar li nga xam ni mën na koo def ci ñoom maanaam moo xam génn kër dem kër la moo xam génn néeg dugg néeg la loolu dafa am lu muy def ci nit ki ci xalaat bu muy xalaat bu tax man li ma doon bañ lépp boo demee dugg na ko nangu loolu mën naa war a nit su fekk te coow du du bàyyi wala waxtaan du ca bari beneen bi mbokk ma laaj maanaam ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam bëgg gi mu bëgg Aïcha ba sëfee noonu ndax ñu la day feeñal xedna si doomu aadama wala boobu lu xew déedéet déedéet dafa am loo xam ne dafa nite bu fàtte ne yonente yàlla ba alayhi salaatu salaam nite yonente yi moom da ciy nite dafa am loo xam ne dafa nite bu ñàkk jotee day ñàkk bu ree jotee mu ree bu daw jotee mu daw bu dëgg jotee mu dëgg ngan pour ci dama adama solo gis na ko nit na ko loolu sëbee déer moom fekk نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين جزا الله الأستاذ فضيلة ñang day xayral jaza ñu ngi ñaan yàlla mu fayal ñu oustaz ñang mi ñang day gën jaa rafeti fay ci farañ fàcce bu leer bi nga xamante ni jox nañu ko ci wàllu polygamie kon nag mbokk yi yéen a ko déggandoo njëriñ kese la ku pare pour def ko incha allahu taala na nga topp rek li nga xamante ni moom la sharia al islam tëral ci mbir mi su ko defee doo am ay daan fii ci àdduna doo am ay daan tamit fa la ñu jëm ci nga xamante ni moom mooy àllaaxira mbiru société dafa yitteel yàlla subhanahu wa taala ba boo xoolee suratu baqara bëri na lool loo xamante ni ma ngi fay leeral wàllu sëy ak ay wàllu soxna loolu doyul waaye aw naw saar woo xam sax moom jigéen ñi la ko jagleel li ci ëpp wàllu soxna yi rek lay toppatoo am na saar woo xamante ni boo xoolee ba tey jigéen ñi ñoo ko moom suuratu talaax li ko tàmbalee ca saaro ba mu jeex nga xamante ni ñoom it ñoo ko moom ba tey ak lii nga xamante ni moom mooy suuratu tahrim boo xoolee tamit ci wàllu jigéen ñi la te luy yore société la rek kon société pour mu dox faw lii di seen mariage itam ñu teg ko ni nga xamante ni moom la ko yàlla subhanahu wa taala bëgge looloo tax oustaz indi détail yoo xoolee société yi nekkoon Europe yu yàgg yi ni ñu ni ñu gisee woon sëy ci wàllu bible ni ñu ko gisee woon ba sharia muhammadiya bu tedd bii nga xamante ni moom mooy ñëw di indi doomu aadama jox ko texe àdduna ak àllaaxira ni mu ko tëre nga xamante ni ban jàngal lañ ci am li ñuy def daal mooy ñaanal suñu oustaz bi rek yàlla subhanahu wa taala fayal ñu ko xam sa diine mi ngi leen di yëgal ba tey ni mën ngeen koy déglu rajo par téléphone moo xam samedi la ba dimanche li ko tàmbalee dix heures ba trois heures mën ngaa woote ci téléphone bi huit cent cinq trois cent soixante mille ñu bamtuwaat ko huit cent cinq trois cent soixante un zéro zéro zéro boo composé numéro bi extension nga def cinq cent quarante sept trois cent quarante sept après nga bës lii di jeez boo bësee loolu incha allahu taala mën nga dugg ci téléphone xam sa diine pour nga déglu rajo bi ñu ngi leen di xamal ba tey mën nga dem ci website bu xam sa diine nga mën a déglu rajo bi live maanaam rajo bi saa buy tàmbali boo duggee ci website bi incha allahu taala lii di sam dimanche bu ne ci une heure jëm deux heures du matin nga cliquer fi nga xam moom lañ def live rajo WPAT rajo nga déglu fa lii nga xamante ni moom mooy waxtaanu xam sa diine waxtaan yi tamit ku ci am aajo bu fekkee ni nga ko dégloo leerul mën ngaa jokkoo ak équipe technique bu xam sa diine ñoom dinañ la jox kaset yi ba nga jot ko ñu ngi leen di yëgal ba tey nii talaata bu ne dinañ am waxtaan bu ñuy teg ci archipo point com ba beneen talaata bi di dellu si ngiree ay fataawa ak waxtaan yu ama am solo yoo xamante ni ñu ngi ko fay teg ci koo xamante ni sa diine leer na la xam sa diine li ko tax a jóg rek mooy doomi aadama diineem leer ko boîte postale xam sa diine mbokk yi doomi ndey 463 New York New York 1026 téléphone bi pour kuy woote looy géndeeku looy dimbalee rajo bi seen rajo la rajo communauté la mën ngaa woote ci 718 502 95 43 kaset yi mën ngaa jokkoo kii di Mansour Gueye ci 917 696 91 ba kii di Waly Sène ci 646 372 65 14 kon ñi ngi leen di ñaanal li nga xamante ni moom mooy guddi jàmm yàlla subhanahu wa taala barkeelal leen ñu leen di jox dig daje rek ba ayu bis bii di ñëw ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala fii la xewee ci xam sa diine incha allah di leen di jox dig daje rek ak thème boo xamante ni buy ama am solo la ci diine dal na yàlla barkeelal barkeelal ñu barkeelal leen aar ñu aar leen aar suñu njaboot di ñaanal way tawat ñi di ñaanal ñi faatu di ñaanal tamit suñu mbokk élage ba tey yal na yàlla oyofal ay mbiram yombalal ko yombal bépp jullit wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam الحلال بين والحرام بين عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب